dalleen ak jàmm ñu ànd gi di réew ko di jeex xëy duñu xibaar nan ñu coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dañoo dugaloon ab motion de censure ci assemblée nationale ngir nag daal di nërmelal bu Amadou Ba waaye nag loolee ndax ñi nga xam ne ñooy waa coalition Wallu Sénégal ñoo leen jàppalewul ci mbir mi journal bi nee na coalition Yewwi Askan Wi daat nañu ñàkk ñi nga xam ne ñooy waa coalition Wallu Sénégal ñoom dañoo maandu ci mbir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 coalition Yewwi Askan Wi waaye Mamadou Lamine Diallo moom tima dafa jàppale coalition Yewwi Askan Wi journal bi nee na Aminata Touré niki démb la mu waxoon Amadou Ba ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat Macky Sall daf ko ko daal di waxaata na ko nag il faut ngeen respecter li nga xam ne mooy constitution bi ndax bu ngeen fi jéemee maanaam ñetteelu mandat loolee mën naa andi jëye ci réew mi yéene kaay gi de la Tribune nee na coalition wàllu Sénégal ñoo bloqué li nga xam ne mooy motion de censure bi yéene kaay gi de l'Observateur nee na gestion bi bi mu jeexee ci Assemblée nationale député bu nekk jox nañu ko lu toll ci cinq cent mille francs yéene kaay gi de Rewmi Quotidien enquête las les écoles libérales libération nee na ñaari député yi di Massata Samb ak Mamadou Niang niki démb fanaan ñu seen guddi gu njëkk ca kasu ba dañu leen a mandat dépôt yéene kaay gi di alerte nee ñaari député pur yi altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañu leen ate yéene kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa Abbas Fall député coalition Yewwi Askan Wi niki démb daan na yàq musiba ak mbelengaan Amadou Ba nee na ko nga ci jëm ci wàllum mal gouvernance ak wàllum impunité yéene la turbine ñu xëy fekk fa aluntina ak collectif jàmm gën troisième mandat ñoom nag jamono ji ñoo ngi wër kilifa dina yi ngir waxtaan ak ñoom ci ñetteelu mandat candidat Macky Sall lan la mën a andi ni ay jéyee ci réew mi démb ñoo ngi woon Touba waxtaan nañu ci ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ma nga sa sommet États-Unis Afrique moom Macky Sall benn priorité yi nga xam ne mënut a ñàkk ci Afrique yéen a kaay gi di Libération ba léegi bàyyeegul xaalis bi nga xam ne dañu ko ngar dajoo te rapport Cour des comptes daal di koy fësal xaalisu coronavirus nga xam ne yenn ci ministre dañ see def ay ndëngate yéen a kaay na li nga xam ne moo xew ministère bi ñu dénk wàllum communication ak wàllum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 benn ci ak dundam